salaam salaam salaam ma nuyuwaat leen ma nuyu laa nuyuwaat ñëpp ziar ñëpp sant ñëpp waa gauche comme waa droite waaw <clears throat> di santaat rek santaat rek sama gars yi nañu santaat yàlla nañu santaat bu baax a baax a baax a baax a que oto bi ci kanam rek la ñuy corne yéen ñi tàmma oto bi ci kanam rek moom la ñuy était, et euh, tout le monde a constaté, tout le monde a constaté, acharnement sélectif, hmm, bi am ci Sénégal <laughs> ñëpp a yëngu fi mu nii ñëpp yëngu parce que waa ji dafa mettre en danger ñu bari ci secteur yu bari moo tax buñ leen naroon bu ñu leen naree di tontu bu ñu naree di concentrer wu à apporter des réponses à ces gens-là du def dara lu positif je me répète encore man dama ne woon dootuma tontu kenn parce que je suis majeur et vacciné maintenant je suis vacciné pour man li ñuy wax on s'en fout suñu yoon nekku ci. li ñuy wax ñëpp xam nañ li tax ñi di ko wax c'est ça l'essentiel li am solo lool la ñiy wax li tax ñiy wax nit ñi xam nañ ko donc ñooñu waruñ leen di perte suñu temps di leen tontu parfois rek ñu sànni leen benn pic après on continue sur la massification sur le terrain c'est ça l'essentiel su ñu bëggee gagner les élections locales législatives, présidentiel nous devons nous mettre dès maintenant sur le terrain. Sur le terrain nag nekk na yow da nga bokk ci parti bi rek wala nga nekk ci instance su parti bi rek waroo mën a dimbali le président Ousmane ko fi ñu ko mën a dimbalee bari na parce que ku ci nekk ci Sénégal am nga ñoo yilif am nga relation à l'intérieur du pays ak à l'extérieur du pays les Sénégalais de partout ku ci nekk benn chaîne la rek ku ci nekk ka nga xam ngay waxal mu wax ak xam ñu tasaare ko. parce que gars yi li ñu bëgg a gëmloo ñun intéressé wuñu ñun Ousmane Sonko daje nag Mansour Faye dëgg la wala dëgg sa ne nous intéresse pas xam nga lu tax loolu taxul nit ñi lekk taxul ñu naan xam nga li am solo un bon maçon se connaît au pied du mur ni ko Ivoiriens yi di waxee bon maçon se connaît au pied du mur pour ngeen mën a indi réponse ci Ousmane Sonko il faut mu accéder au post de décision su boobaa ngeen koy mën a accuser d'incompétent wala de menteur ou bien je ne sais pas quoi mais comme yegsee seeguñu foofu ñun duñ leen bàyyi ngeen ñuy perteloo suñu temps non parce que fii ku wax feeñ yéen war ngeen a seetlu sax xam ne le président Ousmane Sonko yàlla moo ànd ak moom yàllaa ànd ak moom képp ku ci wax ci moom loo xam ne nii tegoo ko fenn fa nga toog yow ka ngay waxal sax day xam ne li ngay wax nii gëmoo ko te léegi lu garaaw mi ngi commencé am ci Sénégal lu yéeme lu doy waar lu nit ñi bàyyiwul xel muy léegi nit ñi ah seeni bëgg-bëgg bopp pare nañ pour même éliminer leur propre frère pour seen objectif ak seen bëgg-bëgg bopp pare nañ pour éliminer leur propre frère léegi kenn mënatula wóolu kenn kenn mënatula wóolu kenn ça c'est plus grave hein loolu lu grave la parce que Sénégal dañoo toll dañoo mel ne dans euh, ci jungle lañ nekk comme dans la mer ki ku nekk rek boo mënee éliminer sa moroom da koy def et ça c'est pas de la politique loolu du politique politique force collective la pour faire avancer ce pays mais politique du ay clan du yow kii bokkuma moom gis-gis wala sentir naa ne mi ngi may xaw a dépassé tuuti rek léegi li may def mooy au lieu que ma concentrer mon énergie à apporter des questions ou bien des solutions positives non je vais concentrer mon énergie négativement à à essayer de détruire cette personne-là cette personne la loolu moo am Sénégal léegi léegi nekkatuñ ci politique ah li li président Ousmane Sonko wax léegi affaire animosité moo am mais politique amatul yow nit yor na dossier def na ca lam ca war a def nit ñëw jël dossier bi ne ah li nga ci def nangam ak nangam ak nangam du noonu na yoon vérifier xool def liggéeyam ngeen ne loolu kooku du ko fi waxee pour lan Mansour Faye taxaw ne dinaa duma dem of nag ñu ne ko déet sëñ bi of nag da fa war a dem parce que li nga yore du xaalisu waa famille fay Sall alalu askan wi la du seen xaalis da war a dem leeral même bu fekkee loi da koo interdire sax pour rek wane le bon exemple Mansour Faye était un élément pour montrer le bon exemple pour que ñu gëm ne Macky Sall li muy wax dëgg la ci moom même bu fekkoon ne sax loi da ko da ko permettre mu bañ a dem ci foofu dafa war a dem pour montrer au Sénégalais que ñoom ay nitu dëgg lañ ci dëgg la ñuy dox mais pour éviter loolu ñu créer benn polémique boo xam ne amul bopp amul genn jëmalewut sénégalais yi fenn li ñu war a wax duñ ci wax li ñu war a def duñ ko def lu may créer ay polémique matin midi soir Ousmane Sonko n'a rien à perdre le président Ousmane Sonko il n'a rien à perdre fii bu perte di am ñun les sénégalais lambda ñooy perte parce que moom fa war a jàngee jàng na fa fa mu war a liggéey liggéey na fa et puis il a des ouvertures dans le monde entier il a la possibilité de faire son travail concentré sur, sur sa famille et sur ses, ses, ses intérêts personnels et qu'est-ce que ça change pour lui Ousmane Sonko bu doon dafa war ay opportunité bu doon vraiment bëgg dara tax mu ñëw ah kon du génn impôt a deman du fa génn parce que amoon na fa ay relation yu extraordinaire xaritu ma xaritu Amadou Ba la Abdoulaye Daouda Diallo moom sax xaritam la ñoom ñëpp ils étaient pendant quinze ans tous les jours ensemble ñoo ñoo gën a xam Ousmane Sonko ni ñun wala ni keneen kuy rey làmmiñ di tijji làmmiñam di wax ñooñu mës ngeen leen a dégg ñu wax ci Ousmane Sonko Abdoulaye Daouda Diallo Amadou Ba Mamour Diallo men nga xam ne ils étaient avec Ousmane Sonko pendant quinze ans ndax mës ngeen leen dégg ñu wax ne Ousmane Sonko nangam ak nangam naka suñu doom ñi nga xam ne xamuñu Ousmane Sonko rek ñooy wax ci moom mais ñi nga xam ne ñoo ko fréquenté nekk ak moom dëkk ak moom déggoo ci kenn ku ne Ousmane Sonko lii wala laa loolu rek war na leen a jox exemple que ni yéen kii ngeen bëgg a tuumaal vous vous perdez votre temps vous perdez votre temps wax ji xam nga lan la lan la Ousmane Sonko proposé. lan la bëgg def kan mooy Ousmane Sonko fan la jaar lan ak lan la def ndax mës naa lekk xaalisu askan wi ndax mës naa trian nit ndax mës naa tooñ doomi jàmbur ndax mës naa joteeg nit dem tribunal son dossier judiciaire ndax mës naa am dara lu ci tâche c'est ça l'essentiel Sall mi ngeen di di ko di ko kii tout le monde sait maintenant qu'il avait des des te loolu ñu bari ñu ko ndox grâce à président Ousmane Sonko lañ ko xam ndekete moom li muy xiim xiim yépp mu ngi ay société yoo xam ne duñ fay ay tax <laughs> sama gars ñoo nekk ci dëgg de ñoo nekk ñu sommes sur la bonne voie on s'en fiche de ce que les gens disent disent on s'en fiche bu leen leen toppatoo laisse les parler nañu concentré wu sur le terrain parce que la politique présence la ak visibilité nañu concentre sur le terrain pour les populations bu ñu xeeb kenn bu ñu xeeb fenn bu ñu xeeb ñenn nañu dem à la base même dans les villages les plus euh, recoins wala dans les villes plus loin bu ñu bu ñu xeeb kenn bu ñu xeeb ñenn parce que politique loolu la da ngay dem yóbbu sa programme direct aux populations ñoom ñu liir ko wala nga expliquer leen ko bu ñu ko mënta liir ñu xam li ci nekk nga ñëw ne leen Ousmane ko mooy diw doomi diw surtout diw jànge fii am diplôme yii def nii dem ci impôt domaine liggéey fa pendant temps mësul sàcc mësuñ ko topp ci dara mësta luubal mësta wax lu du dëgg lépp lu mu wax dëgg la lépp lu mu mës wax ci senegal ba mu dalee politique ba léegi bu ñu doxee tuuti rek ñu ne Ousmane Sonko waxoon na ko d'ailleurs sax loolu mooy Ousmane Sonko waxoon na ko mooy hymne national léegi nag ces gens yi nga xam ne nii nag dañoo yàgg sàcc alalu askan bi sàcc rek lañ fi nekkee sàcc sàcc rek koo ci gis muy xiim-xiimi di jaay costume bu rafet ak garam bu bu rafet sàcc bu mag la parce que alalu askan wi ah ku ciy liggéey ñu di la fay normalement ak sa salaire nga di ci dund ak sa njabeet njaboot normalement mënoo nekk sax un mënoo koo nekk mënoon am sax benn milliard te koo ci vérifier ay compte am ay ay ay ay ay ay ay ay richesse gis mu ngi toog ci ay milliards fan lañ ko jëlee dañ koo sàcc wax ji neexul ba neexul mais sàcc rek la ñuy def sàcc rek léegi sàcc soosu nag ñooy wër di wër di wut ku ñu wax ne fenkat la comme mën nañ koo jiñ sàcc ñu ne fenkat la mais lan la fi fenagu lu mu fi fen dafa wax sénégalais yi loo xam ne defu ko dafa diggee lu mu fenkat kay mooy ki ne danaa def nangam wër fu ne nga wax ko fa ba nit ñi jàpp ko sa nawle yépp na applaudir la bravo vraiment vraiment vous êtes un un vrai républicain un vrai patriote nga jaar ci suuf ne naxay bàyyi maa waxoon waxeet maa ko def maa tey kenn mënu ci tous kooku mooy fenkat bu mag bi il est champion le grand vainqueur des menteurs nit nag Sénégal nag duñu wax dëgg mukk ki ñu war a wax dëgg duñ ko ko wax parce que comme jàpp nañ ne moom mu ngi justice mi ngi xaalis bu mu mën a joxe mi ngi possibilité bu mu la mën a jox opportunité léegi nag dañuy bàyyi sàcc bi fële di topp kii yuuxoo sàcc kenaan bu sàccee dañu bàyyi sàcc bi mu dem de ñu topp nag lu tax ngay yuuxoo sàcc te loolu à tout les niveaux nag ñi nga xam ne da nga leen di jël sa estimer leen ak leen ci kaw yaakaaroon na ay nitu dëgg lañ ñoo gën a nekk ay corrompu que ñoom ñëpp. dañ leen gis ci suuf di jox ay enveloppe bu deux millions ki trois millions moo tax du ñu mës a wax dëgg Sénégal dafa yàqu parce que ñi war a jubal ñoo dëng ñi war a dimbali askan wi di wax dëgg di teg nit ñi ci dëgg di orienté nit ñi ci dëgg ñoo gën a jubali ñoo gën a naafeq ñoo gën a seytaane sey senegal yàqu na Sénégal yàqu na de wóor na alxuraan karim Sénégal yàqu na parce que gis ku xiim jàkkaarloog dëgg magum jëmm nekk muskalaf ne du dëgg reer baa ngi nii nga ne gisuma ko maa moom samay bët gisuma ko loo ci mën loolu moo am Sénégal ay magum jëmm ah des gens que nous considérons comme des responsables je suis désolé les gens il faut que vous allez vous les souteneurs de du président Ousmane sur le terrain parce que gis nga bu leen naa fekk yi jiitoo ci terrain bi inutile que nous perdons notre temps parce que ñoom ils ont deux choses yor nañ seen làmmiñ yor nañ xaalis bu ñuy joxe te Sénégal léegi dem nañ ba gëm ne boo ñëwee damay politique rek da war a génn xaalis joxe <laughs> bañ na ko bu ñuy wax ci affaire mbënd mi liñ doon wax waa yi dem na foofu joxewu fa dara mais waa buy joxe day joxe lu mu moom day joxe lu mu am ñi ko war a joxe te muy alalu askan wi luñ fa def kenn du leen ci gërëm Macky sàll kenn war koo gërëm. kenn waru koo gërëm ci li muy def par la force la parce que kenn woo ko ne ko Macky Sall kat ngir yàlla nga ñoo nekk président déedéet moom moo wër ci àdduna bi néeg bu ne ma dugg fa kër bu ne ma dugg fa village bu ne ma dugg fa dimbali leen ma ngir yàlla ngeen fal ma ma def ma liggéeyal leen ngeen bëgg ñu di ko gërëm kenn du ko fi gërëm duñ fi gërëm benn ministre duñ fi gërëm benn DG ku fi xaar gërëm duñ la gërëm loolu liggéey da ko war a liggéey naa fekk yi nag di wax naa dañ ko a remercier waaw gis nga Sénégal man bu ma ci bëggee wax sax damay dem ba sax damay mujj mel ni saagakat yi ne Sénégal ndax damay damay damay damay décaissé parce que Sénégal di ngay gis ay ponkal yu ñemee nekk ay naafeq te di être fier d'être un naafeq Sénégal nga ko gis léegi quelqu'un qui se présente comme un naafeq professionnel nañu seetaat yàlla dañuy déegu gaaw gii déegu gaaw gii ku ci nekk di naafeq ka fen ba yàlla ne la kéej di nga xam ne lépp dëgg la Ousmane Sonko mësta fenal kenn mësta sàcc kenn mësta tiriyan kenn mësta yàqal kenn dëgg la leen woo kaay leen ma dimbale leen ñu liggéey Sénégal ñépp jariñu même ñi nga xam dañ koy compte sax bu Sénégal doxee dañ ciy jariñu ñëw léegi ñu taxaw ne di fi amee ku ne di génn di wax di n'importe quoi mel na ñu ñu liggéey xanaa yéen li ngeen nekkee léegi tay leen ko regarde sa ce ce gars là neexi tubaab mu ñëw du ñu émerger quoi di oser toog boo xoolee ñu mu toogee sa nga xam ne kii c'est un vaurien si c'était lui j'allais rester dans l'armée parce que moom déjà dafa ñàkk xorom amul xorom parce que avec zizi tubaab yooyu avec les intellectuels nous on fiche intellectuels yi ñoo yàq Sénégal ñooy sàcc su mag si les voleurs avec les cols blancs yi Macky doon wax ces ces gens là yow amoo xorom kenn topp la nga soxor nag iñaan sa xol bi bëx-bëxi yow mënoo fee tàgg Ousmane Sonko démb bëgg koo xas tey mënul nekk tàgg nit démb xas ko tey parce que yow arrangé wu mi ngi lay gis nga ni mi ngi lay raw su ma doon yow ma ñëw rangé wu derrière le président Ousmane Sonko te tëj sama làmmiñ bu ëllëgee bu ñu faloo xëy na ñu def la ministre de forces armées wala chef d' état major wala genre yooyu mais nekk fii di jéem a sa gars da ngeen di gën a yàqule képp ku koy xeex rek ci yàqu la nga jëm billahi wallahi ku koy xeex ci yàqu la nga jëm parce que defu leen dara waxu leen dara tooñu leen nit ki bu maandoo ci yow tooñu la defu la lu ñaaw wax lu ñaaw nga di ko xeex yàgg yàgg yaay rëppeelu yaay dem ci suuf Ousmane ko tey leen ko gën a gëm tey leen ko gën a bëgg tey leen ko gën a yaakaar tey leen ko gën a doyloo ku mu naqari na nga taal gaz ba mu tàng nga toog ci on s'en fiche de ce que vous dites te maintenant fu mu toll nii foofu lañ toll ak duñ leen saaga duñ leen wax ju ñaaw dañ naan leen li ngeen wax yëpp ba baax na waaye ñu suñu yoon nekk ci toppatoo mu loolu les patriotes dugg leen ci biir Sénégal surtout la jeunesse yéen yéen a am avenir devant vous ñii di di rëy làmmiñ di jéem a yàq ak Ousmane Sonko defar nañ seen bopp defar seen njaboot ba pare ñoom pour ne bu Macky Sall wàccoon tey sax ñu ngi denc ay milliards yoo xam dinañ ci mën a dund dund seeg seen njaboot. yéen les enfants des pauvres des paysans yéen yéen a war a jël le dossier Ousmane Sonko ngeen jëlal ko seen bopp gérer ko te bañ a déglu borom maladie ak wax ju bari ji parce que xaalis boobu ñu leen di jox seen xaalis la yéen Macky Sall mosul jox un franc Sénégalais yi avant muy nekk ministre et député bi muy nekk Petrosen sax mës a dimbale kenn. léegi lay mën a dimbale ci alalu askan wi mais xaalisu bopp mosu cee dimbale ma sàmba wala ma dem donc bu leen ñu emmerder Macky Sall n'a jamais rien foutu dans ce pays avant qu'il de de ministre ou président assemblée nationale léegi la am na muy joxe donc bu ngeen bëggee attaque Ousmane Sonko si joxe Ousmane Sonko sàccul alal bu muy joxe yorut ay lobby yu koy financé yaa ngi dégg donc bu leen ñu emmerder da ngeen ko war a tëj da ngeen war a lem ba mu toog tëj ko. parce que sàcc si yéen la fenkat yi yéen la parce que yéenay war di diggee di corrompre di diggee di wax lu du dëgg te ça la vérité je suis désolé mais sénégalais yi dañoo war a yow xam ne ñii di mbépp mbépp ci tele yi sol seen costume wala seen kii di jaay nit ñu charge ak ay non c'est-à-dire Ousmane Sonko xale yi nii mag mu ci fen dinañ la wax da fen mag mu ci dud wax dëgg xale yi moom bul sonn mënuloo leen leen ñaar dañ la koy wax donc yéen a war a njëkk a jug wane la bon bon exemple di àtte dëgg di wax dëgg mu Macky Sall defee dëgg ngeen ne dëgg la def bu deful lu dul dëgg ngeen ne deful dëgg su Ousmane Sonko deful lu dul dëgg ngeen ne deful lu dul dëgg parce que Ousmane Sonko n'est pas un ange tombé di ciel doomu aadama la du jinne du rab du du leneen nit la mën na def erreur mais tant que sàccul alalu askan wi fenul askan wi deful lu mu war def vraiment bàyyi leen ko mu doxal. moo gën quoi parce que yéen ñi wax ñépp ku ci wax feeñ ku ci wax rek nit ñi xam yow yaa kan ndekete ku ci wax rek après dañuy comprendre nuyu naa leen ziar naa leen les patriotes concentré wu leen ci président Ousmane Sonko avec son programme bu leen tontu bu leen tontu loolu lañ bëgg ngeen ne ci télé yi di saaga ak réseaux sociaux yi di leen saaga ñu ne voilà gis nga ko dañoo leen discipline loolu lañ bëgg tuuse leen ci seen xol ngeen wëlbati jóg ñiy saaga ñiy xataraay ñu ne gis nga leen dañoo réew yaakaar nañ ne réew nii lañ koy jëlee loolu lañ bëgg loolu lañ bëgg de seen objectif mooy pousser leen à la violence donc bu leen ko nangu jël leen am ngeen lu ngeen wax ak lu ngeen dox mooy la la solution mooy les parcours du président Ousmane Sonko son programme loolu ngeen fu ngeen toog ci télé yeeg réseaux sociaux yeeg fu mu mën di doon wala ci biir kër yeeg village yi wax leen ci loolu bu leen wax ci ces gens là ñee jëruñoo tontu ku ci wax rek yàlla da lay weer ñëpp xam ne yow mii ndekete doo dara vive le président Ousmane Sonko jërë ngeen jëf